qui permit un bon déroulement du festival. Merci à la commission scientifique. Merci à la commission logistique. Merci à la commission accueil et hébergement. Merci à la commission restauration. Merci à la commission organisation. Merci au compte de pilotage du festival. Merci au comité de pilotage du festival. Merci aux services techniques du département. Merci aux différents ennemis qui ont fait des prestations. Merci aux consultants Serge Permettez-moi aussi de remercier nos partenaires techniques et financiers. Le directeur général SN ACM, Mamadou Kassé, ministre français auprès du président. La fondation d'entreprise de la Sonatel pour son avis financier. Le ministère du Tourisme et de la France sénégalaise pour la promotion touristique, l'agence de la couverture maladie universelle, le président de la maison des éleveurs, M. Ahmad Diallo, le président des chefs de village, M. Ibrahim Ansi, la famille Ibrahim de la deuxième édition d'Ibara de l'île, le drapeau El Adjibouna Semouniam, pour avoir mis de, plus de 1 million pour le drapeau qui porte le nom de El Hadji Rahimahullah. est spécial au ministre de la Culture et au gouverneur de la région de Tambacounda, M. El Hadji Amar qui présidait pour une deuxième fois le festival Peñouñani. Mention spéciale aussi à notre préfet du département, M. Dembagré et son adjoint, et sous-préfet de Koutaba, Wolof et de Dembagmadjalen. Monsieur le préfet, la population du département à travers mon voix vous témoigne tout la toute sa reconnaissance pour le travail de qualité que vous êtes en train de faire pour le Bantoum. Merci aussi aux forces de l'ordre, gendarmerie, aux AFC, aux sapeurs-pompiers. Merci pour toute la population de Niani. Je vous remercie. maa ngi sànni ñëpp maa ngi remercier monsieur le préfet préfet département Koupentoum nga xam ne ne conseil départemental bu ak buy def ay résultats moom mooy suñu maire moo ñuy woon yoon kon ñu lay remercier bu ñaanal sa martaba

jàppale nañu bu baax baax parce que boole nañu ak ay partenaires di jàppale nañu kon moom ñu ngi sant di ko ak déplacement bu xat bu nga xam ne def na ko démb kon ñu ngi koy sant Porque tu ya dafa yàgg bëgg bu sport man dégg góor gi du yaa kon ñu ngi koy remercier bu baax ndaxte lamb bi affaire lamb bi bu mu koy yëg dafa xatan trop bu ko neexoon ne gëdd na waaye wax dëgg yàlla dafa bëgg ci sport mais mu ñëw taxaw gis nga tey lamb bi ni mu feesee kon góor gi jublu yaa jazaakumullaahu xayran maa ngi remercier yëpp nit ñi ñu nga xam ne ne démb ñoom ñëpp jaar nañ fii ñi xool seen i cosaan mënuma lim su ma limee rek damay juum mais ethnie département bi yëpp ñu leen di sant di leen gërëm di leen masawu coono di remercier am tamit jeunesse bi monsieur le préfet ndax jeunesse bi avant festival bi vraiment taxaw leen fi ci organisation bi ñu ngi leen di remercier ñoom jeunesse bi muy góor yi muy jigéen ñi yal na yàlla jàppale kenn fay yàlla dong moo leen mën a fay di remercier encore rajo Ñaani rajo Ñaani ñu di sant di leen remercier ndaxte liggéey ngeen ci festival bi bu baax ci jiital Demba Dieye ak équipe am bi yëpp teewuñu kenn Ah, di remercier encore gendarmerie si jiital seen commandant ndaxte vraiment depuis festival bi di am ba léegi ñu ngi taxaw di ñuy jàppale kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ngi remercier encore Croix-Rouge ñoom tamit wax dëgg yàlla si liggéey bi ñu ngi remercier sapeur pompier ñom tamit ñu ngi leen sante di leen gërëm ndaxte fu ngeen joggé sorina né ngeen ñëw japp ci ligéy bi ah en tout cas suma ma limee rek danaa joom waye ma ngi sante di remercier askanu département du paté wu ma kenn yalla mo yor fay yalla na leen yalla fay yalla yokku département bi ma ngi ñaan équipe benn mbooloo di jàppante di liggéey suñuy askan falu dafa am fu muy yem dafte subhanahu wa taala nee kullu man alayha faanun wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram lépp loo gis day jeex yàlla rek mooy rek kon ñun ñi nekk ci bi ñu war a booloo boolee suñu doole tabax département Koupantoum ëllëg sa mandat jeexee suba askan bi dinañ seete ñu ne lii conseil département def na nangam si nangam wala maire bi def nangam nangam kon maa ngi ñaan ñëpp ñu ñëw ñu booloo ñu liggéey ndaxte booloo mooy doole booloo mooy doole yeneen bi wax na ko aljamaa rahma booloo yërmande day ñëw ah suñu tekkaloo nag kooku foofu asaab la maanaam lor la su fekkee anduñu ku nekk dem nii dañuy lor suñu département lor suñu askanu département kon maa ngi ñaan ñëpp ñu ñëw ñu jokk ñu liggéey pour département bi di remercier sama conseil yëpp monsieur le préfet ndax ne sama conseil wax dëgg yàlla ay liggéeykat lañu te boo déggee conseil maanaam ku leen yokku xel kon yow boo jiitee da ngaa war a déglu kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di remercier bu baax a baax monsieur le préfet maa ngi leen di remercier bu baax Tidiane Tine sama secrétaire général maa ngi koy remercier bu baax ndaxte bu jàll la bu yàgg la bu xam liggéey bu la kon monsieur Tine yàlla na la yàlla fay ñun mënuñu la fay mais yàlla dana la fay yàlla def la ministre di département ndaxte bu ñu la ko defee da ngay liggéey liggéey kon merci Diagne maa ngi leen merci bu baax Cheikh Sarr moom

bani aadama boo gis day juum waaye gën a baax kuy juum suñ la nee juum nga nga nangu ne juum nga kooku yeneen bi moo ko jàngalee sallallahu alayhi wa sallam kon wa axiru daawaana an alhamdulilah rabbil alamin merci beaucoup